ñeent fukk ak ñeent yosuwe ak réewum kanaan salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu jeexaloon nanu sunum njàng ci tawretu Musa di téere bu jëkk bi ci mbind yonent yi ci tawret bu sell bi jàngoon nanu ni bàkkaar duggee ci àddina ba indaale fi alkaande waaye it gisoon nanu yàlla aji sax ji ci yéenam ju rafet ni mu digee woon yónnee ci àddina ab musalkat mu naroon a jot doomi aadama ci alkande ji fi bàkkaar indi te ngir jëme kanam pexem ngir yónni musalkat boobu ci àddina yàlla woowoon na ibrahima mu bàyyi këru baayam ak xeetam toxu ci réew mu sore mi ñuy wax kanaan yàlla fasoon na yéene def ci Ibrahima xeet wu bees wi ramukat bi waroon a wàcce te ba Ibrahima àggee réewum kanam yàlla feeñu waatoon na ko dig ko ne réewum kanaan mi nga nekk léegi di ab doxandéem dinaa ko jox ñi soqi ko ci yow ngir ñu moom ko ba faw tey jii nag dinanu gis ni yàlla amale li mu digoon Ibrahima bu yàgg di jébbal réewum kanaan sëti ibrahima ñuy bànni israel kanaan mooy réew mi ñuy wax tey palestine wala bokk israel ci émission bi weesu ci saar wu mujj ci tawreet jàngoon nanu ni musa deewe ca tunduwa jàkkarloog réewum kanaan ba musa faatoo nag yosuwe jawriñam moo donn yan ba yosuwe mooy ki yàlla faloon mu wuutu musa gisoon nanu yosuwe ay yooni yoon ba noppi li gënoon a neex ci seede yosuwe mooy ni mu gëme woon lépp li yàlla digge woon fekk lu ëpp ci bànni israel gëmuñu ko yéen a ngi fàttaliku ne yosuwe mooy kenn ci ñaari ndaw yi gëmoon yàlla ba bànni israel jëkke àgg ca diggu réewum kanaan ñeent fukki at la amoon ba ko bànni Israël doon waaja sànni ay xeer ngir rey ko ndax li mu leen wax rekk ngir ñu gëm aji sax ji ba moom réewum kanaan ma tey nag dinanu gis ne yosuwe moomu bànni Israël bañoon moom la yàlla fal ngir mu nekk kilifa gileen leen naroon a dugal ci réewum kanaan téereb yosuwe bi nuy jàng tey mu ngi nekk ci mbind mu sell mi ci diggante tawret ak saboor téereb yosuwe dafay nettali ni yàlla amale li mu digoon ibrahima bu yàgg bi ko naan dinaa jox sa askan ak yow réewum kanaan mépp ngir ngeen moom ko ba faaw waaye fi nu toll ci sunu gëstu ci nettali bànni israel amaguñu woon seen réewum bopp ay doxandem rekk lañu woon ca màndig ma te réewum kanaan ma ñu waroon a dëkk dafa feesoon ak ay ponkal yu jàmbaare ci xare waaye yàlla aji kàttan ji fasoon na yéene dàq waa kanaan tas leen ndax seeni bàkkaar yu bare te ñaaw dénk réew mu naat moomu bànni israel léegi nanu dugg ci téereb yosuwe ba gis ni yosuwe ak bànni israel duggee woon ca réew ma ba noot ko moom ko ci saar wu jëkk wi mbind mi nee na gannaaw bi muusa jaamu aji sax ji faato yàlla wax ak yosuwe doomu nun di jawriñu muusa ne ko léegi sama jaam muusa faatu na jógal nag jéggi dexu yurdan yow ak mbooloo mépp ngir dugg ci réew mi ma jagleel bànne israel fépp fu seen tànk laal may naa leen ko ni ma ko waxe woon muusa dingeen moom suuf si daleka ca tàkk ga di dem ba ci géej gu mag gi jëm soowu jant kenn du dër fi seen kanam li feek yaa ngi dund dina ànd ak yow ni ma ko defe woon ak musa duma la wàcc mukk duma la bàyyi mukk dëgërlul te feddali sa njàmbaar ndaxte yow mii yaay dogal moomeelu mbooloo mi ci réew mi ma giñe jagleel seeni maam ndax joxuma la ndigal lii dëgër lul te feddali sa njàmbaar bul tiit dara te bul jaaxle ndaxte aji sax ji sa yàlla mu ngi ànd ak yow fépp foo jëm noonu yosuwe jox ndigal li kilifay mboolo mi ne leen wër leen dal bi te ngeen xamal mbooloo mi ne leen waajal leen yóbbal ndaxte fiiw ak ñetti fan dingeen jéggi dexu yordan dem nooti réew mi leen aji sax ji seen yàlla jagleel mbind mi day nettali ni yosuwe yebale ñaari ndaw waxleen ne dem leen seeti réew mi rawatina dëkk bu rëy ba ñuy wax yeriko ñaari ndaw yi dem nag seeti dëkku yeriko ak ay miir yu kawe te dëgër ya wër dëkk ba ci guddi ñaari ndaw yooyu nëbbu ca yeriko fanaan ci këru jenn jigéenu moykat ju tudd raxab wante amoon na ci waa yeriko ñu gis ndawi israel yi duggoon ci këru raxab ñu daldi ko nettali buurub yeriko ne ko am na ay nit ñu bokk ci bànni israel ñu ngi ci dëkk bi ngir seet ko buur bi daldi yónni ay xarekat ci këru raxab ngir jàpp leen waaye raxab nëbboon na leen ci kaw xaddu kër ga gannaaw ba xarekat ya deme raxab woo ndaw ya ne leen man xam naa ne aj sax ji seen yàlla moo di yàlla ju dëggu ji xam naa xel it ne seen yàlla dina leen jébbal sunu dëkk ak réewum kanaan mépp waa réew mépp dañu leen ragal lool ndaxte dégg nañu ni seen yàlla ubbee woon géej gu xonq ga ca seen kanam ak ni mu tase woon seeni noon yépp gëm naa ne aji sax ji seen yàlla mooy yàlla aji wóor ji kon nag maa ngi leen di ñaan ngeen giñal ma ne bu ngeen ñëwee te nangu sunub dëkk ngeen aar ma man ak sama njaboot musal nu ci dee ñaari ndaw yi tontu ko ne bu nu yàlla jébbalee sa dëkk dina nu la aar yow ak képp ku nekk ci biir kër gi ci sar ñett mbind bi day nettali ni waa israel waroon a jéggee dexu yordan ngir dugg ci réewum kanaan waaye dex gu xóot te yaatoo nekkoon ci seen kanam naka la mbooloo mu toll ni ñetti million mënoon a jéggee dex gu yaatu googu ah loolu yomb na xam ndaxte yàlla aji kàttan ji leen ubbiloon yoon ci biir géej gu xonq ga soppeekuwul noonu danuy jàng ni yàlla ubbile bànni israel yoon ci biir dexu yordaan te ñu jaar ci diggu dex ga ci suuf su wow si noonu la bànni israel yépp jégge dex gi ba àgg ci kanam dëkk bu rëy bi di yeriko waa yeriko nag tëj nañu bunti dëkk ba kenn duggatul dëkk ba kenn génnatul ci saar juróom mbind mi daf nuy nettali ne bi yosuwe nekkee fa kanam yeriko mu téen gis benn nit ku yor jaasi taxaw ci kanamam yosuwe laaj ko ndax sunu xarit nga wala sunu noon mu tontu ko ne maa di kilifa xarekatu aji sax ji yosuwe daldi daanu dëpp jëwam ci suuf noonu ki tudd kilifa xarekatu yàlla ne yosuwe summil say dàll ndaxte béréb bi nga taxaw bërëb bu sell la yosuwe def ni mu ko waxe mbokk yi ndax xam ngeen ki doon wax ak yosuwe yàlla ci boppam la gisoon nanu ba noppi ni yàlla feeñoo woon ibrahima ci jëmmu nit te mu feeñu muusa ci tàkk-tàkku safara ci biir as ngarab léegi nag gis nanu ni yàlla feeñoo yosuwe ci melokaanu jàmbaar ju yor jaasi di wax ak moom noonu yàlla aji sax ji ne yosuwe gis nga maa ngi lay jébbal yeriko jébbala buuram ak xarekatam yaak say xarekat na ngeen wër dëkk bi benn yoon bés bu set ba muy juróom benn fan na juróom ñaari sëriñ dox ca kanam gaal gi ñu def aliwoy kolere ga yor mbiib ca juróom ñaareelu fan ba na ngeen wër juróom ñaari yoon dëkk ba te sëriñ ya di liig ca mbiib ya noonu nañu mbiib mbiib gu xumb bu ñu ko defee ne nit ñépp yuuxu ca kaw tabax ba wër dëkk ba dina daanu xarekat yi dinañu dugg ca dëkk ba ku nekk jubal sa yoon aji sax ji daldi jeexal waxam ak yosuwe dem ba mu ko defee yosuwe daldi dem ci bànni israel wax leen lépp li ko aji sax ji santoon yosuwe santaane ñu fapp gaalu kolore gi wër benn yoon dëkk ba waaye mu ne leen bu kenn wax benn baat ba bés ba may joxe ndigal ne ngeen yuuxu bu boobaa nag dingeen mën a yuuxu gannaaw ba ñu doxee te wër dëkk ba benn yoon ñu dellu ca dal ba fanaan fa ca ñaareelu fan ba ñu wër dëkk ba benn yoon daldi dellu ca dal ba noonu lañu jàppoo ba mu am juróom benni fan waaye ca juróom ñaareelu fan ba ñu jóg ca fajar daldi wër dëkk ba juróom ñaari yoon ba ñu ko wëree juróom ñaareelu yoon ba ba noppi sëriñ ya daldi mbiip mbiip yu xumb noonu yoosuwe ne mboolo ma yuuxu leen te yàlla jébbal na leen dëkk bi ba bànni israel di déggee mbiip ya jolli nag ñu yuuxu yuuxu yu mag tabax ya waroon dëkk ba daldi màbb gaay israel yi nag dugg ca dëkk ba ku nekk jubal sa yoon noonu gis nanu ni yosuwe ak banni israel noote woon dëkk bu jëkk bi ci réewum kanaan ci bés boobu waaye yeriko yépp dee ba mu des raxab jigéenu moykat bi ak njabootam ni ko ko ñaari ndaw ya dige woon këru raxab màbbul ndax li mu dëddu xërëm yi te wekk yaakaaram ci yàlla israel lu tax yosuwe ak bànni israel nootoon dëkk bu am kaaraange boobu ba dugg ca réew ma leen yàlla digoon ndaxte dañu gëmoon kàddug yàlla lu tax nag raxaab jigéenu moykat ja deewul ni waa yeriko ba dëkk ba màbbe ndaxte raxaab yemul woon ci yéemu rekk ci kàttanu aji sax ji waaye dafa dem ba gëm ko ànd ak gaay yàlla yi loolu la mbind mi wax bi mu naan ngëm moo tax miir yi waroon dëkku yeriko màbb gannaaw ba ka bànni israel wëree lu mat juróom ñaari fan ngëm moo tax ba raxaab jigéenu moykat bi mucc keroog ba ñuy boom ñi dégg di loon yàlla ndax li mu teere woon yëddukat ya teeru bu ànd ak jàmm waaye ku amul ngëm doo mën a neex yàlla ndax te ku bëgg a yàlla war nga gëm ne yàlla am na te dina neexal ñi koy wut ci lu wér bëggoon nanu lool bokk ak yenn nettali yépp yi téereb yosuwe ëmb waaye jot gi nu am mayunu ko ci tënk war ngeen xam ne téere bi day benn bennal ni yàlla ànde ak yosuwe ak bànni israel ba jébbal leen réewum kanaan mépp dëkk gannaaw dëkk ni mu ko digee woon tembe noonu ci saar ñaar fukk ak benn mbind mi nee na yàlla may na bànni israel réew mépp yàlla may na leen jàmm fépp yàlla jébbal na leen seeni noon yépp mbokk yi ndax yàlla amaloon na li mu digoon ibrahima ak askanam bu yàgg ndax yàlla mayoon na réewum kanaan bànni israel ni mu leen ko waxe woon axa kay yàlla kuy sàmm kóllëre la lépp li mu dige dina ko def lu mu yéex yéex ci xalaatu nit yàlla aji sax ji bëggoon na lool defal bànni israel yiw may leen réewum kanaan mu neex mi waaye mu ngi doon xaar ñu wóolu ko ni nu ko gise woon bànni israel yàqoon na at yu bare laata ñuy tàmbali gëm li leen yàlla digoon noonu seeni waajur dugguñu ci nooflaayu réewum kanaan ndaxte gëmuñu woon digi yàlla yi yow nag ndax gëm nga yàlla laajunu ndax gëm nga ne yàlla am na wala ndax yàlla kenn la iblis moom ci boppam sax xam na ne yàlla kenn la laaj bi nga war a tontu nag mooy ndax gëm nga yàlla ndax sopp nga ko ndax woolu nga kàddug yàlla ak sa xol bépp ndax xam nga li yàlla dencal ñi ko gëm ndax am nga dund gu jeex ak xel mu sel mi yàllay may ñi gëm xibaaram bu baax bi lu ëpp ci doomi aadama yi gëm nañu ne yàlla am na waaye ndeysaan ñi xam te gëm digi yàlla yu rafet yi te rëy ba ëpp xel barewuñu de mbokk mi déglu yàlla sopp na la te bëgg na la lool barkeel waaye faaw nga xam kàddoom gëm ko te nangu ko ci loolu mbind mi nee na bëggunu ngeen taayeel waaye roye ñi gëm te muñ ndaxte ñooy jot li leen yàlla dig jërë ngeen jëf ci déglu bi su fekkee ne am ngeen laaj ci lu nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis kon ba émission bi di ñëw yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li mbind mi wax naan lu bët gisul nopp déggu ko te xel xalaatu ko loolu la yàlla dencal ñi ko bëgg